ñaan ko ci njekk ak teraanga mu may ñu ko ci njekk ak teraanga bàyyi ñu ñu def ci njekk ak teraanga mbir mi jeex ci ak teraanga moom moo dem ñu des lii rek laa ci xam ne waaye buñ lànkee dëgër bopp mu dëgër bopp mu dér ñu dér day métti ci ñun rek day métti rek waaw waaye gannaaw daal wax na loolu daal man daal suma sañoon ñun ñu fekk si ko ñun ñëpp ñu ko may ñu ko ak njëkk ak teraanga rek ah, man ni loolu laa ci xam xaw ma ci lenn de am déet ah baax na suñ ko deful li dana métti gis nga xam nga ñi métti yi ñi muy gën a metti mooy baadoole yi baadoole yi ñooy sonn mais am na ñoo xam ne duñ sonn mais baadoole yi ñooy sonn koo xam ne yow sa baay amul lu lekk sa yaay amul lu mu lekk yow amoo loo lekk ñu dolliwaat ci yeneen problème léegi dafay gën a métti kon nañ leen seet nañ leen waxtaan waxtaan waxtaan daal baax na buñ waxtaanee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 jafe-jafe gi nga xamante ni boobu ba léegi ñoom ñoo ngi koy dund seen signal ba nga xam ne coppite nañ te yaakaar naa du tey nga euh, njëkk di sax di wax mm. euh, bu xel yëpp demee ci sunu papa El Hadj Sid Lamine Niass euh, xool fu mu taxaw ci wàllu média moment bi ñu toog ay moment yi nga xamante ni liggéeykat yi fu mu nekk ñoo ngi ci njàqare mm. ginnaaw si nag daanaka seen signal dañ ko coppee nekk nañ ci njàqare lan ngay wax ci mbir moom ginnaaw si mbir mi ne li rek <laughs> Babacar Diagne daal laa koy ko mm. leen dimbale rek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 ñu leen wax ñu des ko parce que àdduna noonu la kii day bàyyi kii njaay ak jënd la àdduna njaay ak jënd la kii day wax lii kii wax lii rek jaana ñu jaayante jëndante donc man daal loolu laay ñaan waa waa Walfadjri ñu góor góorlu ci loolu ñaan Babacar Diagne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 Ah, man de jàmm laay seen ndax sëñ Muntaxa kenn du toog moom ci doox jàmm waaw mm-hmm. ah, ndax moom nitu jàmm la mm-hmm. moom biiram bitam yëpp jàmm la mm-hmm. waaw moo tax moom euh, moom amul amul werante moom bésam moom gisee moom ak moom jàmm rek la waaw ah, jàmm rek lay doon macha allahu taala mbir moom nañ leen góorgóorlu rek man daal yaakaar naa ne su Macky Sall euh, ëffee loxoom jàmmaam bu ëffee loxoom rek jàmmaam Macky daal bu ëffee loxoom jàmmaam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 ñëpp koo lim da nga am foo day yëg moom maam koo lim rek am foo day yëg moom maam ñun ñëpp añ ay mbokk lañ kon kay nañ leen nañ ko rafetal nañ ko rafetal rek mu rafet ñu ànd mbokk waaw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 benn mbokk lañ benn bopp lañ benn bopp kenn du ko xar ñaar mbokk kenn mbokk buñ ko xaree du nekk mbokk jàmbur ak jàmbur lay doon kon ni ñu góorgóorlu rek ànd nga xam ni eh, bu bala ñoo fetal xale yi ñu seetaat xale yi waaw loolu lépp amul solo li am solo rek mooy nañu waxtaan nañu déggu ñu nekk benn nañu ànd bu ñu àndee rek mu baax wax gis-gisam ci réew mi ngi muy doxee démb ci xibaar yi ñu am ci moom dañu ko yóbbu mandat de dépôt ñu bi manifestation ñu ne ko ak euh, manifestation bi amul Mbàkke bokk na ci ñu ko toppee mbiru Cheikh bi ndax ñu gisee mbiram ak ah, xaw ma ko mm-hmm. xaw ma ko de xam naa leen daal dinaa ko wax nañ ko yërëm rek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 loolu mooy àdduna waaye képp ku indi wax luy indi safaan ah buñ la jàppee yaa tooñ sa bopp nañ leen seet indi jàmm ci réew mi parce que nee naa leen benn mbokk kenn mënu koo xaaj kenn mënu koo xaaj buñ ko xaajee dañuy sonn rek mais du sotti mais nañ ko rafetal rek moo gën ba ba léegi xëy na am na question boo xam ne am na lu ñu ci échappé muy cas <coughs> Walf bi ay père de famille ñoo fa ne mm-hmm. mu mu leer ne seen directeur bi nee na wax fa dëgg yàlla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 parce que ba ni ko tàcc woy Iran woy waxal wala nga wax a wa wa wa ba ne saay ñëw la nuus kana doon tàcc da nga dul gis mu marché rek libéré déglu rek parce que kana doon tàcc doo gis mhm. moom danaan mes mhm. ma matam moytu mhm. waaw Iran ku ne mën na ko libéré Iran libéré mi di jot ne añi nañ añ te man añu ma loolu doxul di donc loolu lépp dañ ko war a bàyyi xel nañu bàyyi xel jay nañu bàyyi xel jay yi ñuy def luñ mënul di def lu ñu mën baax na ci de nañ leen def lu ñu mën parce que loolu mooy jafeel àdduna waaye di def loo mënul ndax tàccukat yi ndax wax waxkat yi ngay wax ba wax loo xam ne ëpp na loolu loolu dara jaru ko loolu dara jaru ko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 bokk nag ni ko sëriñ ce que fayda azam ak fatakkal allah mën nañ ko déggee gëm na teg ah ko neexee bu ko neexee ni ko tudde ni ko gëmmal dóor mhm. waaye ñun daal li ñuy ñaan mag yi mhm. bu mu gëmm mhm. bu mu dóor na xam ne njabootam la yor na xam ne Sénégal yi ki gën a bon si na ma yàlla baal ki gën a bon jikko gën soxor